ci jaar-jaar yi ngën ji mbindeef ngën ji bu dee ngën ji arab rek xamal ni ngën ji mbindeef ndax lañ la ni al arbu xayru unaasin fal urbu xayru unaasin wa xayruhum xuraychuhum wa huwa fihim xayru xayrihim ndax bu nee arab yi ñoo gën ci nit ñi te ki gën ci nit ñi te ki gën ci nit ñi mi ngi juddoo ci ñoom ci giir Quraysh kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci nit ñépp loolu amul werante muy wax foofu ca commencement ba ni alhamdulillahi dil ijaadi wal qidami mu middina bi wujudil badri sil qadami moom bi nga xamante ni ba mu yaakaaree ba mu amee nammam sàkk ñu ñun mbindeef yi ndax yàlla dafa am iraada lu ñuy wax murid day namm dara ba mu bëggee nag bindunu danoo xalaat ni yonent bi sallallahu alayhi wa mooy kii tëbb suñu moom lañ yokk mu nekk ci ñun wala ñun ñëpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la te li la koy firndeel dani abana min nuurihi nuura nabil alami buur bi tabaraka wa moo jële ci leeram firee nañ ko nu nekk nag ñii ni soqee na ci leeram ñi ni fàccale na ci leeram waaye daal ak lu mën di mel buur bi tabaraka wa taala moo jële ci leeram bind ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bind ci yonent bi sallallahu alayhi wa dog noo amal loolu daal di nekk kon lu tax nag ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën ci mbindeef yi moo tax ñu waaye jëkkul ci àdduna bi loolu bu la ko laajee ah day tontu bi day yomb maam Maodo Malick tontu ba lay yomb wax mu ni leen wa xalqul axlaaqi ba'sul anbiyaa'i muqaddimatun li duhurihi fa'lam wala tanim buñ la ko expliqué woon ci àdduna bi rek bu fekkente ni ab buur day ñëw fenn ah buur ba bala moo ñëw xanaa dinañ yëgle ni bis sàngam lay ñëw ah dina am ñu koy garder dina am ñu koy encadrer dañ ko lalal tapis dañ ko defaral tribune mu doog ñëw yooyu yëpp dina ci am mu doog a ñëw kon léegi noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa ñëwee kon mu ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw li tax ñu bind bindee fi bind ñoom maam aadama ba kere yonent bi ñëw ndax looloo ay ati at la war na ay junni at wala million yi at sax yonent bi doog a ñëw waaye loolu lépp dañ ko doon waajal pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ci àdduna fekk na nag moom mi ngi ci kawnu bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woon ca ay xijaabam di sabbal buur bi tabaraka wa taala xijaab yooyu maam Seydi Cheikh Seydi El Hadji Malick nee na xam naa xijaab bu nekk ñaata la fa yonent bi sax fiihi yusabbihu llaahu mawlaana bila sa'ami boo demee ci xijaab ya qudratun minnatun karaamatun maadilatun نعمة في هداية ونبوة وهداية ونبوة فلا تهم عدل وصلي يا إلهي وجزية حمدنا عنا محمدنا والخير في الحلم علينا ورفعت مواضع دولة شفاعته فيها إنا ولفاوتي بفتاك مولانا وصلي يا إلهي واجزي أنا أمانك

لي وجزي أبدا أن محمدا المعتدل الخلاف جزاك الله جزاكم الله خيرا waaw kon loolu mooy kiiraay yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar na ci bari na trop du fi xaj waaye liñ doon wax rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax mbindeef yi ñenn ñi jiitu ko fi loolu tappi lañ ko lalal pour yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñëw ndax mooy wa xalqul axlaaqi baatul anbiyaai muqaddimatun lu ñu jiital la li zuhuri nabii salallahu alayhi wa sallam yi bind yonent yi nga xamante ni ñoo ko jiitu ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ndax moom bur bi tabaraka wa taala wa xaatima nabiina xaatima nabiina ma kaana muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatima nabiina waaw loolu beneen euh, xisa la waaye yonent bi moo tëj euh, yonent yi kon kon foofu ñu gisee ni léegi boo dee tagg nit wala ngay wax nit ah loolu mooy maanaam ca kaw awaa ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw waaye nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah lan mooy cosaanu kuy takk nit kay xanaa war ngaa xam fan la juddoo ak ci gan giir la juddu ak nu mu mel ko defee maam say xaaji Maalik ni xam naa ko maa xam yonent bi sallallahu alayhi maa kaana kaana muntaxilan maanaam leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ca aadama ba ba ci bi mu juddoo di tuxoo ci ndiggi góor ñoo nga xamante ne ñu tedd lañ di jëm jigéen ñoo nga xamante ni ñu sell lañ kon wa kaana shiishu wasiyal asli muntaxilan min xiiratil karami lil xiirati roxami maanaam yonti yàlla siis ca leer ga ca ba mu jógee ca aadama ci leer nga dafa ñëw ci yontu yàlla si ndax aadama ak xawaa xawaa daawul am doom lu dul ñaari doom lay am maanaam ab seex seex rek lay am doom yi am yépp ay seex la waaye yontu yàlla siis bu muy judd moom doom nga ñëw ndax lan leeru yonentu bi sallallahu alayhi xajul ak keneen ci biir wa kaana siisun wasiyal asli muntaqilan li aadatil hurbi fi hurmi جلتي مولى على نبيه وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما أجمعين وخير زيز فما تأتيهم فردا هواء تكرم نورا خير مصطفى مودنا على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عاملنا وخير سيس فما تكيم فردا حول تكريما نورا غير مصطفى مودنا علينا سلام ربنا دائما منصبهم وغير شيش فما تأتيه منفردا هواء تكريم نور غير مصدحم u sunu maam awaa xayra siisin ku siis maa tatiihi mosu koo kenn siis dong la ci kenn ndox lan takrima nuurin gayra mufdaximi ngir teral leer gi nga xamante ne du buuxante du taj ci biir kon mu ni la nag boo bëggee xam yow maa mi yonent wa sallam yaa xaaisa albahri lil asdaafi indiya asdaafun biha durratun ala min aljalami muy waxin la rek ni yow mii bëgg a xam maa mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dala koy kinaayaat ni la wurus la ah wurus wu rafet wu taaru boo ko bëggee xam bul dem di dugg ci géej gi di ko seeti bul dagg paas di ko wëri ñëwal dox benn jéego rek ci man ñëwal rek taxaw ma wax la ñan ñooy euh, maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam wu mag woowu te nag bokk na ci li ñu wax ni euh, bokk na ci ay secret boog ñu ne ku mokkal maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo lakk kon mu ne muhammadun nuuruhu wa abdullahi shaybatu haashimin wa abdu manaafin maa xusayihimi kilaaba murrata kaabin wa luwayin wa gaalibin wa fihrin malaki malikin nadaril karami kinaanatin wa xusaymatin mudrikatin wa iyaasin nisaarin maadin mudari amra isirrihimi ba way wa jeex mu ne adib nisaaran adid nidaaran man yujaa adid nidaaran maadan man yujaawisu adnaanan fa takdibuhu xat jaa min al alami maam Cheikh Seydil Xaaji Maalik ni ñooñu mu lim ak see yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ca euh, maad ak adnaan fa la yem ba muy lim am maamam ba agsi foofu kon nag histoire buñ ko saxalee nag ba àggal ko ca chichitam ndax loolu mooy li am ndax yonent bi sallallahu ma nga cosaanu ca Chine wante nag jaxasoo ya ca nekk ak ñi wax lii ñi wax lee yonent bi sallallahu moo taxaw nii ah ku paase Adnaan mii xamal ni ah say say nar yow yaa wax loo nga xamante ni wax loo ma la ko waaye Adnaan daal fa la yemale moom ab limam kon boo jàllee Adnaan jàll ci fiil goo nga xamante ni dafa dëng du moom kon wax nga lu dul noona boo jàllee ci àddinaan yàlla dogal nga wax wax ba àgg ca siis kon wax nga la jub kon daal wuute am na foofu waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo lim ay maamam ba àgg ci àddinaan kon kooku loolu mooy eh, cosaanam ci wàllu góor ñi ci wàllu jigéen ñàttam mu nekk ñu seetlu xam naa loolu day guddi du day day yàgg duñ mën a tas loolu lépp ñu continuer kon ci li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu ni tey la bisu juddoom maanaam tey jii ca fajar guddi euh, thani ashara rabiil awali maanaam fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm mooy rabiul awal lañ koy wax ca la juddu euh, maam Cheikh El Hadji Malick ni la man maa la ko mën a wax nu mu juddoo layla la arubati xalla durru fi rajabin ثم المنادي ينادي المسمع الفهم ليل القربة حل در في رجب ثم المنادي ينادي مسمع الفهم وصلي يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمد أهنا المغتاقين موضعنا ليلة العروبة هل لا تر في رجب ثم ينادي العجب على الفاهمين وصليا يا إلهي واجزينا بالهمالنا أن محمدنا المختار في القدم kon loolu la ko jiitu mooy bi papa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga ni yàlla moo man te yàlla dafa wax ni xuli xali insaana ajula doomu aadama dañ koo bind mu yàkkamti rek wante boo seetloo ci kéemtaani buur bi tabaraka wa fi mu jaarale abdullah mi nga xam ne mooy jur yonente bi salallahu alayhi wa gis nga biir ma na mu yàggee ak abdullah nga xamante ni dañ koo mujj jot ndax mu juddu ndax mu dund te loolu buur bi tabaaraka wa taala moo ko namm rek foofu dangay gis ni eh, Abdullah mi nga xamante ni mooy labat Amina Amina mi jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, Abdullah moo nekkan fukkeelu doomu papaam muy Abdul Muttalib Abdul Muttalib mii dafa yàlla dafa dogalan muy ko amul woon i doom maanaam daal digg dooleem bi mu nekkee ci digg dooleem amul i doom te booba ma makkatal mukarram arab yi dañ daan ja puukaroo ay doom ku bari doom kenn du la ñime duñ la yàpp boo bariwul doom dañ lay yàpp dinañ la yónni sax koo sàggantul ndax boo amee njaboot gu bari ah njaboot gi ñoo lay défendre yainuunahu fi lqitli walqadami ah booba nag euh, abdul muttalib dafa ñaan yàlla ni ko man de boo ma mayee fukki doom ku amagul benn boo amee fukk dana kontaan mu ni boo ma mayee fukki doom danaa hadiyaal benn doom bi ndax sante la ko ah laa loola daal di continuer nag buur bi tabaaraka wa taala may ko ko mu commencé benn ba at bi ci fukk loolu Seydi El Hadji nee na ba mu àggee ci fukk fa naa la ma raama min mawlaahu makramatan ashrata abnain yainunahu fi lqitli mu amee nag la nga xam ne moom la sàkk woon ci buur bi tabaraka wa taala te niserante woon ko moom muy fukki doom yoo xam ne danañ ko dimbali ci liggéey ak ci xare mu daal di nag ni cell nag bañ def nag loolu mu waxante woon ak buur bi tabaraka wa taala te mooy kóllëre googu mu waxoon ne day rey fukkeelu doom ba booba nag la ko mbir mu yéemee dikkal toujours rek lu koy fàttali ci gént pason bu nekk ah yow kat la nga waxan def ko la nga waxan mattali ko ndax yow yaa noon dinga nga reye sa fukkeelu doom bi te fukkeelu doom ba li ci li ci gën a doy waar moom mooy papa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ci gën a bëgg te moo ci gën a rafet te moo ci gën a nekk xale moom ci moom la leer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk muy mbir mu yéeme booba nag àdduna ñii ko bëgg doon ay mbokkam ay doomi ndeyam ñii nga xamante ni ay àndandoom lañ a ah, bëgg nañ ko ni waaye bëgguñ ko ci xol ndax bëgguñu mu bari doom Maam Maodo Malick nee na xaalu ñaari xaalu yooyu lii la firi xaaluuhu xaaluuhu laa tafaal bida abadan te yuraa aadatan fi fihrin lam turani ñi ko waaw kon moom dafa ni day day rey doom doom bu fukkeel bi ba mu dogoo ni da koo war a rey léegi ñii ni ko bu ko def am ñenn ñu naa ko def ko ndax yow yaa ko digalante ak sa borom ndax boo ko deful ah yaa ko digalante ak sa borom def ko ñenn ñu naa ko bu ko def kaay ñu xool beneen solution maanaam loolu ñooy doomi ndeyam wala ñi ko bëgg bokk naa ko nañ xool benn beneen solution solution ba mooy lan namdi li xaybara fiha shayba kaahinatun mustamirina bi ma xaalat dawi salami ñu di ko yaa shayba booy firi loolu da nga naa yaa shayba wala nga ni shayba yow shaybatul hamdi abdul muttalib namdi li xaybara kan dem xaybar xaybar googee lu fa nekk kaahina ay ab buxaaba mu ñuy seet ñuy jibara nga fa boo kooku noonu ku siiw la ku ku man la lum nu wax daal ci la jaar léegi mbur ma daal di mujje foofu euh, ci gàttal rek bañ demee xaybar fekk fa ku màggat ko nga xamante ni man euh, buur bi tabaaraka wa lool moo desee woon ci mission mu xaar fa euh, Abdul Muttalib wax ko li muy def rek moo desoon ci mission ma nga màggat ba ba nekk ci al ishraafu lil mayt lil mawti maa ngaan ca lalub deem daal bañ ko fa fekkee ah da leen nii comme daal loolu nga defan nisar bi loolu nga nisaran nañ ko bantale kon sa doom jooju de dañ koy bantale te bantale gi mooy dañ koy hadiya ak deret te mooy lan mu ni ko dangay jël fukki gëléem ah teg teg sa doom jooju bu ko defee ñu jël bant yi maanaam carte yi daal buñ buñ sànnee mu dal ci gëléem yi ñu rey euh, gëléem yi wala buñ sànnee ñu dal ci ci ci sa doom bi ñu wutaat fukki gëléem teg ndax booba li taxan fukki gëléem yooyu doon hadiya doon doon diya ku mu saray nit rekk say mbokk loolu lañuy ñuy joxee diya maanaam loolu la ñuy jotee ku dee kuñ rey looloo tax mu ne ko nañ nañ ko defee nii kon nañ jël fukki gëléem ak sa doom ji teg buñ bantalee mu dal ci sa doom ji ñu defaat fukki gëléem léegi ñu daal di jël boobu solution te mooy euh, ñuy def